tey rek ñoom mbégte dalal Serigne Khadim borom tawféex euh, mu doon koo xam ni dañuy faral di taataan ay waxtaanam heure bu waxee ndaw ñu dégg ko ñu ci ñu fas yéene waxtaan moom ci wàllu actualité ak lépp loo xam ne rek njëriñ la ci wàllu maraboutage Cheikh bi dañ lay bàyyi nga nuyu ñu lay suivre fii ci People 221. bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin maa ngi nuyu ñëpp képp koo xam te rek yaa ngi may suivre maa ngi lay nuyu bu baax. Mhm. di jaajëfal ñëpp waaw. Mhm. Euh, fi ma bëgg njëkkee. Euh, ci actualité laay commencé parce que xam naa tey émission moom daanaka actualité bi mooy xaw a ëpp. Euh, tout pare rek euh, naka nga jàngatee combat bi nga xamante ni moo dox ci diggante Balla Gaye ak kii di booy Niang bi nga seetaanee face à face bi. ah combat bu nar neex la de ndax combat bi moom wane na boppam pare jaay na boppam. Mhm. combat boobu. Mhm. ndax mën naa ne combat yooyu moom ci at mii ah. combat yi neex na. Mhm. mooy combat yëpp mooy Boy Niang muy. Balla Gaye muy yeneen yëpp daal Sa Thiès mhm, mhm. neex na moom mhm. yëpp daal combat yi neex mais keroog ñu seetlu ni jàkkaarloo bi mystiquement yéen ñi nga xam ne yéen yëngu ci loolu combat bi dañu gis ni mystiquement daf ci feeñ waaw mystique macha allah musique moom da cee feeñ dëgg. musique mm-hmm. da cee feeñ dëgg. Mm-hmm. looloo tax ma ne ku ci xaw a nelaw tuuti rek. Mm-hmm. dinañ la ko sa morom dina ko def. waaw mais tey ñi mbër yooyu ñëwoon fa ba doon xool ma jël ci Balla Gaye Boy Niang kan nga yaakaar ne moo ci gën a pare mystiquement. waaw instant bi ñu mooy comme li ma waxoon rek ne bu dee jamono bi ñu toll nii. kii moo gën a pare. Boy Niang moo gën a pare nii pour mystiquement nii. jamono bii nii nii nii. Mm-hmm. moo gën a taxaw. Boy Niang waaw xaw ma nag bu ñu demee ba ci kanam. Mm-hmm. waaye nii nii nii nii Boy Niang moo gën a taxaw. Mm-hmm. waaw. Sa Thiès Reug Reug. waaw Sa Thiès moom tamit fu ñu toll nii nii nii boobu tamit mystique la. waaye instant bi ñu toll nii tamit kee moo Reug Reug moo gën a taxaw. pour mystique nii waaw. lamb ji nag ñëwagul. Mhm. waaye nii nii nga ma laaj loo tax man na bu dee nii nii kii moo gën a taxaw rek rek moo gën a taxaw. Mhm. segment nii mhm. ma ñëw ci li nga xamante ni daanaka fan yi mu ngi lëmbee réseaux sociaux yi. mu di seen benn naw la di Cheikh Bara Ndiaye. ñoo gis mu am audio boo xamante ni daanaka dafa génn. mu doon ñii ni daroon jëw Ousmane Sonko bi nga ko seetaanee naka nga ko jàngatee. sëñ bi man yooyu duma ci du bëgg a wax tax ndax ñoo dañoo ñàkk fulla. ñàkk fayda gis nga sëriñ day def mbirum sëriñ boo demee ba ni sëriñ nga dañ laa nawloo ay nit ñëw ci yow di la ñaanloo dafa am ci loo war a dugg ak loo warta dugg mm-hmm. nga détail politique mm-hmm. yoonu sëriñ ñëwu ci mm-hmm. sëriñ li nga xamante ni mooy warmaa mooy yëfam mooy sëriñ danga war a toog ñu dikk di la ñaanloo ngay ñaan loolu nga war a am ak affaire bi ak politicien mhm. waaye du caagi ne da ngay dugg ci détails yi jàmbur. Mhm. doon gisoo rafetlu ma loolu. Mhm. waaw. kon nga jàpp ne sëñ Bara Ndiaye daf ñàkk fula. waaw lool moo am. ñàkk fula googu moo am ndax parce que yow kilifa nga. defal yëfi kilifa def def yëfi responsabilité. xam ne dafa am ñoo xam dañ lay yaakaar. dëkk di la taalal seen loxo di la ñaan loo am déet nga leen di ñaanal ci yàlla kon lépp loo xamante ni da nga koy def. wala lépp loo xam da nga koy wax. dafa doon war doon loo xamante ni lu lu dëggu la. waaye Cheikh Bara Ndiaye loolu mu def. doonul loo xam te ni mooy lool yoonam nekkul ci Ousmane Sonko. Ousmane Sonko lépp lu mu mënti def loolu yoonam nekku ci. moom li mu war a xaar mooy. Ousmane Sonko dékk dékk koy loxoom ni ko ñaanal ma mu ñaanal ko. loolu mooy doon waree xam. waaye du caagi ni kat nga génn di wax loo xamante ne la ngay wax dara wóoru la ci. même bu dee fekkee dañ la ko wax loo tax yow waroo ko taxaw di ko wax. ak luñ la ci mën a proposé. waroo ko wax. man loolu laa gis. Mhm. waaw ma ñëw ci li nga xamante ni mooy wàllu ñaan yàlla. Mhm. Euh, tey nit ki damay njëkkee ci wàllu seet. Mhm. tey nit ki da ko war a seetal doog ko ñaanal. wala nit ki mën nga ko ñaanal saa nga seetal ko. waaw xam nga nit moom jàpp naa ne bu dikkee ci yow ni la maanaam damaa bëgg nga ñaanal ma. d'abord ko li nga war a njëkk a def mooy xool ay mbiram ba pare. ndax nit ki mënoo dikk ni ko ñaanal ma. ngay ñaanal nit sa xoolalu xooloo ay mbiram ba pare. Mhm. faa nga xool ki ay mbiram ba pare. Mhm. ba xam ay mbiram lan la. Mhm. nga doog ko mën a ñaanal. waaw ci ban anam ngay seetee. waaw ñun anam bi ñuy seetee bëri na. da suñu kurus gi dañ ciy seet ndox dañ ciy seet. suuf li ma ciy seet li may seet bëri na. te lépp lépp loo xamante ni seet nañ ko ba la lii la rek mhm. lii la mhm. waaw te lépp nag lu wér lay doon lu dëggu mhm. du ñu dox ci lu ñàkk fu la du ñu dugg dox ci loo xamante ne lu wérul daal waaw ñu gis ni fan yi am na loo xamante ni daanaka sonal na ndaw ñu bari muy wàllu cat wàllu cat bëgg naa nga dul ma ci ay leeral waaw cat moom ndaw mooy li may wax rek muy ndaw muy mag képp kenn nit warta toog ba cat dikk di la naan nii. nit ñi dañoo war a fagaru sa bopp. nit ku nekk dangaa war a fagaru sa bopp. di jug sa bopp. ndax nit ñi boo nee cat dañ koy xeeb am na ci ñu bëri ñoo xam boo nee cat moo la moo nekk ci yow dañ koy sa amaana xamuñ ne cat moo gën a garaaw looy gis. cat moo gën a danger looy gis. cat mën na jàpp nit ba rey ko. loo tax sa nit ñi dañ ko xeeb. solo doy waar la. Mm-hmm. da ngay gis nit ki jekk sa nit ñi léegi li ma gën a kii dañoo bëgg fës. nit ñi léegi dañoo bëgg fës. Mhm. sax fës boobu ñuy fës am na ci ñoo xamante ne. Mhm. fës boobu du seen arrangement. Mhm. waaw. tey ma ñëw ci li nga xamante ni mooy wàllu ubbeeku parce que boo xoolee ndaw ñu bari ñu ngi am jafe-jafe yu ubbeeku. seen i wërsëg di daw ba mu jaral leen ñu génn réew mi te man gis naa ñoo xam ne jàppale nga leen. ba tey alhamdulilah yàlla dogal na ñu ngi doon ay chef d'entreprise ci wàllu ubbeeku. waaw wàllu ubbeeku moom yàlla dimbali nañ ci bu baax. nee naa la wala lépp loo xamante ne ci wàllu ñaan la. man sëñ xaadim borom tawféex yàlla dimbali na ma ci. Mm. ndax tëdduma di nelaw. Mm-hmm. ñaan mooy sama liggéey. Mm-hmm. kon képp koo xamante ni ñëw nga. Mm-hmm. dinaa jël samay engagement ñaan ci yàlla mi nga xamante ni moom mooy maye. ñaanal la ba sa ajo faju lépp nag yàlla suñu borom la. waaye képp koo xamante ni ñëw nga sëñ xaadim. ni ko ñaanal ma dama tëju. wala damaa bëgg ubbeeku. wala damaa bëgg alal. ci kàttanu suñu borom wala damaa bëgg a def nii mhm. incha allahu rabi dinaa ñaan yàlla ba yàlla may la ndam mhm. waaw mu mel ni nag li may bëgg a wax nii du question waaye firnde la parce que ma shahidnaa illaa bimaa alimnaa mhm. ay nit yoo xam ne defar nga leen ñu gis li ñaan sutura dafa baax mu di secret boo xam ne bari na ñoo xam ne ñu ngi koy wax te yoruñu ko te man gis naa ne secret bi yaa ko yor muy wàllu yokk awra waaw yokk awra moom jaratul dama dama damay toog ba si yàgg tax ma ne jaratul ma koy tudd di ko wax. ndax nit ñi niñ ma siy songe. moo am doole doole boo xam te mooy loolu ndax parce que lu wér la. mu yokk awra. yokk awra bi dañ la koy defal nga gis sa bopp. so li ñu lay defal du produit du dara. yokk awra galañ yii la dama lay defal galañ yii nga gis nga tànn ci galañ yii bi nga bëgg. ma yokkal la awra nga gis sa bopp mhm. gis sa bopp xam ne liñ lay defal lu wér la mhm. yokk awra bi amul benn jafe-jafe amul benn loo xamante ne da lay indil problème wala dara mhm. buñ la ko xasee defal ba nga tànn bi nga bëgg incha allahu rabi di nga ci gis sa bopp gis nga yëpp ay dimension la ah mais sëñ bi dimension bi 23 la <laughs> la ilaha illallah bi 23 centimètres la sa lépp moom dafa doon loo xamante ne naturel la mhm. joxuma la garab nga sangu mhm. joxuma la garab nga naan mhm. joxuma la garab nga diwoo sa insha allahu rabbi bu ñu la ko defalee ci kàttan suy borom di nga ci gis sa bopp waaw mu mel ni foofu noonu fa laay duggee ci li nga xamante ni mooy wàllu euh, impuissance sexuelle ma gis ñoo xamante ni tey dimbali nga leen ba ñuy dénk la seeni doom ci daara yi dimbali nga leen ba tey ñuy tuddee la doom muy wàllu impuissance sexuelle waaw impuissance ba tey comme ba tey dama ciy wax rek dépassé naa di jox garab nit naan la jëla garab gi nga koy naan. wala jëla garab gi nga koy diwoo. lépp ci lii lañ koy defee. foo mënti nekk ci àdduna bi. bu la loolu dalee. woo ma téléphone ci kàttanu si borom nga tàggoo ak moom. bu la neexee nga ñëw bu la neexee nga toog fa nga toog. Mhm. ma liggéeyal la. Mhm. waaw voilà gars yi mu ngi noonu di Serigne Khadim borom tawféex waxtaan bi neex na. Mhm. Euh, fi may ñëw ci li nga xamante ne sonal na daanaka ñu bari rawatina jigéen ñi muy wàllu rab ñu naan ay malaise euh, te gis naa ci ñoo xamante ni ginnaaw yàlla tey bu ñu mënee di doxi sans problème sa jëmm ji moo tax. lan mooy secret boobu. waaw secret bi rek mooy li ma la wax rek wéetal suñu borom. gëm sama bopp xam li may def xam na may ñaane xam na may faje ba képp koo xamante ni am nga tawat bu mu mënti doon malaise muy lu mu munti doon boo dikkee incha allahu rabbi dina ñaan yàlla fëgg sa bopp nga jóg dem sa yoon mais li gën a gaaw ci di dugal nit ci wàllu rab lan la ci jigéen ñi wàllu solin wala waxtu yi ñuy bëri na li dugal rab ci nit bëri na am na si ñoo xam si solin yi la mhm. na si ñoo ba ñuy jóg mhm. am na si ñoo xamante ni moo ngi leen di dugge ci marché ba mhm. am na si ñoo xamante ni moo ngi leen di dugge ci ñi nga xamante mooy élève yi jàng école. surtout loolu dama koy lancer message. Hmm. mooy élève yi nga xamante ni dañuy jàng école. Hmm. jigéen ñi. Hmm. ndax parce que des fois nga gis jigéen boo xamante ni dafa war a gis mbaax. dem jàngi bu pare bu dem ba ci école bi affaire bi arrivé ko. bu demee day dindee affaire bi. jël ko noonu sànni ko. so loolu di ànd ak deret nga koy sànni. am na ci rab yoo xamante ni loolu dañ ko bëgg. loolu buñ ko xasee jël ba mucc deret boobu. jeex na. su lu bon bon bon bon moo la ciy dugg. Mhm. loo tax loolu na ngeen ci bàyyi xel mooy xale yi nga xam dañuy jàng école. Mhm. ak parents yi nga xamante ne ñu am seen i njaboot. Mhm. ñu jigéen dem di jàngi loolu nañ ciy bàyyi xel. di toppatoo xale yi ci loolu bu baax a baax a baax. ñi nga xam tamit dañuy def comme jigéen ñi bu ñu amee xew. calculé wu ñu waxtu julli jot na dégg nga timis jot na. calculé wu ñu tisbaar jot na. calculé wu ñu njolloor la calculé wu ñu dara. ñoom saay bu la neexee ñu génn jot. sa dafa am rab yoo xamante ne heure boobu la ñuy génn di dem. looloo tax nag loolu yomb leen di leen dugg. ba maanaam bu ñu tollee ci sëy du ñu gis jëkkër ku dikk wax day dem bu ñu tolloo bu ñu sëy même bu fekkee sëy nañ ba am boo war a am doom pour ñu am doom day am problème pour ñu gaaw war na lor day problème la loolu yëpp da koy jafe wala nga nekk pour nga jubóog sa borom kër doon problème da ngeen di meroo ay jafe-jafe yu bëri di ci am loolu yëpp loolu moo koy waral waaw ma ñëw ci li nga xamante ni daanaka waa diaspora bi ñoo ma ko yónnee muy wàllu papier wàllu ut kayit nga gis ñoo xamante ne dañuy tukki toog fa ay at te man gis naa ñoo xamante ne tey ñu ngi ñëw ba yóbbuwaate wàllu papier ñi nga xam ne dañu nekk ci diaspora bi te yemuma ci ñi nga xam ne sax dañu xëccoo ay këy ay kër wala hmm. bëgg place ci wàllu papier. waaw xam nga am na ci ñoo xam boo nee papier rek dañuy jàpp ne papier mooy lan dem pour ñu signer la benn affaire pour nga tukki wala mm-hmm. dara. Mm-hmm. sa papier bu ñu nee kayit li mu ëmb dafa bëri. Mm-hmm. ci lépp loo xamante ni yaa ngi koy lijjanti. ci mu xeetu wàllu kayit. ñu war la ko signer. wala nga am loo xam ne yaa ngi koy toppatoo mu tëw a sotti. ci kàttanu si borom boo contacter boo ma contacter ci numéro bi si bi. incha allahu rabi danañ ñaan yàlla mi maye ba sa aajo faju ci. ndax ñaan rek la ñuy def mm-hmm. képp koo xamante ni juboo nga ak ñun ba gis ñun mm-hmm. incha allahu rabi lépp lu ñu wax dinañ ko def ba sa aajo fajo mm-hmm. waaw mu mel ni des fois xaw di raar ñu bari di la woo duñ la jot lan mooy sa secret ak xalwatu parce que bariwul ñoo xamante ni ñeme nañ ko te dama gis dañ ci jël ay engagement waaw xam nga maanaam tey jii day sama damaa xam liggéey bi rek xam na may doxee ci lépp bëgg tamit ñi nga xam damay jëflante ak ñoom képp koo xamante ni jëflante naa ci ak yow rek nga gis sa bopp ndax dara neexu tey ji ki gis la ci internet ci réseaux sociaux yi nii. Mhm. gis la jël sa numéro. Mhm. la ngay wax dugg ko. Mhm. doy ko. mu woola la téléphone ni la sëñ bi lii laa bëgg nga ni ko nangam mooy weexal bi. mu yëkkati ko jox la. kon maanaam li nga doon loo xamante ne li war mooy na kooku aajoom faju loo tax lépp lu may def pour nit ki aajoom faju rek dama koy def. lépp lu mu laaj tamit. pour ma defal nit ki ba aajom faju dama koy def mhm. ndax ñaan rek laa xam mhm. xaw ma leen lu ñaan mhm. kon dama koy respecté gëm ko waaw daanaka fi may xaw a jeexalee samay question muy ci wàllu usman Sonko candidature Ousmane Sonko 2024 naka nga ko de waaw boobu moom wax dëgg yàlla man nit laa boo xamante ne du ma wax mukk loo xamante ne lu ma gisul la du ma wax lu ma xoolul la loolu xoolaguma ci dara mhm. kiiwaguma ci ndax parce que aw ma ko aw ma woon jot boobu mhm. ndax parce que maa ngi woon sama liggéey jamono bi ñu toll nii mhm. dama nekkoon ci ay tëju loolu moo waral loolu waaye nag bu ñu ko xoolee dinañ leen wax nan la ak ndaka la ndax parce bëgg naa lépp loo xamante dañu koy génne du doon loo xamante lu ñuy dekk-jekk inventé ko wax ko ci dëgg rek la sëñ xaalim di doxee waaw mu mel ni association Cherche Marie ñoomay message léegi ni ma waxal ñu sëñ leen ba yaakaar nañ dootuñ sëyati nga dimbali leen ba tey ñu am ay sët di la ko tuddee mhm. ñi am jafe-jafe am borom kër waaw ñu jafe képp koo xamante ne yaa ngi may suivre nga am jafe-jafe pour am boroom kër mhm. jàppal ni sa ajo faju na mhm. bul tàyyi jëlal numéro téléphone bii bul tàyyee bul ni woo naa ko benn yoon jotuma ko rek jeex na déedéet boo ma wooyee jotuma jotoo ma bàyyil ma message si whatsapp bi boo ma bàyyilee message ni ma lii ak lii ak lii laa bëgg nga tënk ko wax ma ko mhm. ci kàttanu si borom suñu ko liiree dinañ la tontu xool li nga xamante ne mu wara la jàppale la ci ba nga am borom kër si diir bu gàtt sa ki nga bëgg lay doon mhm. ak ki nga xamante ni tamit dafa bëgg am na si ñoo xamante tubaab rek lañ bëgg mhm. surtout tubaab rek lañ bëgg. Mhm. jëkkëru tubaab. Mhm. wala nga am soxna tubaab. Mhm. képp koo xamante ni yaa ngi ko bëgg moo xam nga nekk ci biir réew mi. wala nga nekk ci bitim réew mi. ci kàttanu si borom dinañ ci jàppale ba sa aajo faju waaw. Euh, jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne yéen a ñu doon suivre fii ci people 221 euh, tey sa mot de la fin ak lan ngay ñaanal ñi nga xam ne ñoo lay suivre. waaw ñi may ñaanal ñi may suivre mooy di leen ñaanal ñu am jàmm. ah ñu am weer képp koo xamante ni yaa ngi suivre sëñ xaadim sëñ xaadim moo ngi lay ñaanal nga am jàmm am wér am mujj ku rafet mm-hmm. loolu rek la sëñ xaadim di ñaanal ñëpp di ñaanal suñu réew bii mm-hmm. di Sénégal jàmm nekk fi jàmm mm-hmm. mujj fi jàmm njëkk fi. Mm-hmm. di ñaanal ñëpp ñu am jàmm. Mm-hmm. di ñaanal samay ñaari waajur. ñu nekk ci jàmm am jàmm. allahumma jërëjëf jëf. Euh, jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy suivre euh, mu ngi noonu Serigne Khadim borom tawfiix numéro baa noonu ci écran yi boo bëggee sa aajo faju lépp loo xam ne yaa ngi koy soxla ci wàllu ñaan yàlla ak lu mën a doon rek bul tàyyi wooteel ci numéro boobu boo ko jotul nga bàyyil ko message incha allah sa aajo dina faju ñu ngi leen di